fii su fekkee amoon go cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti kolos mooy génn nga cliquer ci kaw fi ñu bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lan moo si des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñuy def

surprise kii moom ñuul na di wàcc ku baax xanaa poroxaan nga bawo siar na la de sa marque bii de moom du marque fii eh laqata mo yow xanaa ki laq koy seet eh laq na def koy seet yow ni waxal koy sen ngay xam waxal ngay lam sa li bët yi nga xaj na xaj taw mais yéen yéen ñan ñun ñun ñoo ñun yow yow yow la kan yow iya, iya, iya, waaye bu ñu fantoog sa bopp bu jasir bi ngaan fi la xar jaar yow doo wax nit ñi bu ñu wax ak yow ngay jéem jaay patron yi muy jaay tubaab waaye ngay mel ni def dox sa bari lu tax raxoo sa yére bi kii sax daan ko may nuróon bi lu tax dugaloo ci xonga yooyu xam nga sunu jaay sa kenn solo du kii boo soo fes tuuba laa la soo mel na njar bu soo mel ko mel na njar bu soo njar bu soo sa xalaat na may dak ko si kër gi ngeen wala kër gi kenn dafay nekkul ngeen wala num mu demee nii ok ñun fii suñu kër eh. nijaay suñu eh. nijaay moo ko eh. moom eh jaw da kii xam nga seen yaa andi bi kan? ni sàcc ko ay junni waaw tegtal bam ñu joxal nag daa nuroo kii waaw ba nga dëgg de lekk yi ñëw na ñuul laaj ñuul na waaw yow xanaa maami naar sa karo fii xam nga maami naar de ak maraaki yee woo yow kii waaw waxal kër gi bàyyi mataar moom ko kër gi man maay borom yaa mën a ak mën fen moos yow bi naka jàkk ba xam ne nga nii nga ne daj nii sa weex ya, bi nga mel ne defak sa bopp bi nga yo yo karagu yo yow yow yow yow yow dina yow fooy jëlee pàkk waxuma loolu ani Baye Matar sëngal ani Baye Matar laa ani Baye Matar sa diga ci biir ci biir yow doo wax naan nga yuuxu demal nga wool ma ko nii nga nii nga nga nii woo ko toos woo ko toos muy bënd bënd lu ko yàlla gën nga ñëw ko muy kër kër la la kenn ko ko rew ñu ma mom kër ci kër de faal ko bete nga simi ko ñu may ki da rew may mu ñu na do ko lépp yaa ñu ko teg amul damaas xamul pata seytaan dama ñu jàpp waaye may ñu avion yéen ak ngeen ñëw ngeen ñëw dugg ci kër jàmm yi rek naan maa ko kaay kaay kaay kaay kaay waa kaay waa oh oh oh ndànk rek fu ñaareel na toogay doof daal danga di ci am dañoo rek ngeen def Nisiar deh. La ilaha illallah. Bay Matar. Tawa waaw Bay Matar. Waaw. Bay Matar. Waaw waaw waaw. Yëpp kër gi fan la fan la fan la. Fii nii fan la. Fii si kër la. Fii dalal xel la wala fan la dalal xel la wala dalal jàmm la wala fan la. Waaw gis nga yërmande rek yërmande ji nga Fii hôpital fan dañ fi faj ay dof. Déedéet. Maanaam yërmande ji da nga woon moo ñëw si kër gi. Bay Matar. Waaw. Bay Matar. Waaw. wax dëgg yàlla sama xol moo ngi bëgg a tàng si yow. waaw maa ngi jéggul de jéggul rek. Baye Matar confiance bi ma la joxoon mi ngi wàññeeku. bu baax na yokk nag na yokk. Baye Matar. na yokk xam nga lan moo la sonal. yàgg gi ma ñaan gu nangu de borom. Baye Matar. Baye Matar barki dem mu ñëwuma fi jox la cent cinquante ah, mille. an ah, kay fanweeri junni yow koŋ. dëgër këj. benn nit bu ci jot benn dërëm. gisul wallaahi man mi di wax ak yow ñaar dërëm yi gën a ndaw lekku ma ko. ñaari soo ko lekkul te nga sànq xaalis bi nag. bien voilà fii laa tëdd ab ab agresseur ñëw jël ko waaye loo mu sa jox dem si nit ñi. ak kay yomb. wallaahi li wallaahi diggante ma la joxee xaalis bi. waaw nga dem da dem rek agresseur bi ñëw. ma dem agresseur bi ñëw. wallaahi wallaahi. wallaahi Baye Matar. wallaahi ba nga may wax da nga may wax lu mën dugg sama nopp gis nga man ma sénégalais de man américain la ci dealeuru maa ngi lay fréquenté dealeuru mag yi ñoom laay fréquenté mun loo def lu ma xamul Baye Matar nit bu ñëw nga gëmal ko ne kër gi yow yaa ko moom teguloo ko fenn. Ah, ko de maa ko seere bu ñoom du ñëw foog ne seere mooy. Baye Matar boo fàttalikoo benn jamono ñëwoon naa taxaw si buntu kër bi gis fi ngandi maami dof. waaw njaboot gi dof fi nii. tey ñaari ponkali dof bu góor ak bu jigéen. li gën a dangereux nga boole leen si benn nekk. un ma ñëw meurtrier mën naa am ci kër gi. man moy man maay responsable bi parce que man ma mom keur gi. Baye Matar ok amna nouvelle bu neex nak bu ma lay annoncer ah wa wa li nak mo gën xam nga wax deug yalla man mom bo tangé rek bo tangé rek da nak sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama yaram day day day euh, day day waar bëgguma di mer. wa wa wallahi wallahi mais set na ko ba set ko. wallahi euh keur gi dama koy jaay. ah da ngay fenn astaghfirullah digel ma nga jum sax de. ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def <laughs> ëpp naa def ëpp naa def sama àddunaa ci nekk <laughs> yii sama àddunaa ci nekk ubal loolu ubal ba mu jekk nga na ko ubal ba mu jekk loolu kay ubal ba mu ubal ubal ba mu jekk pen nga féetale ko côté. Baye Matar suba wala ginnaaw suba benn courtier dina fi ñëw. ëpp naa def de. xam nga lan mooy courtier. courtier mooy ñi jaay kër yi. merci beaucoup. waaw dina fi ñëw bu ñëwee dana xool kër gi constaté ko su ñu gisee prix. bima ko wax dina ko jaay te da ngay genn kër gi sans délai. xam naa nga waye ah kon de bay bo nga dem samay mbokk génnew nag wallaahi bis bo nango keur gi mang sa bir france ba wala pandre tantre na sama bop dee. da nga meuna jënd sama mbokk yëpp wala na gannaaw. da nga meuna jënd keur gi. munu ma kaa jënd waye teraanga nga ma jox te yow keur gi da nga keur ndona la. kon keneen ku ko mën a jënd bu ñëwee. waay caam wuy ma na woon teg waay caam wuy ma waay wuy ma wuy ma wallaahi wallaahi wallaahi wuy ma. Baye Matar xoolal nit ñi dañu jox si caam. Baye Matar nit ñi. Baye Matar man Amérique waaw waaw xam naa loolu. nitu kaddu laa su ma waxee rek du ma ci dal. waaw waaw waaw loolu dañ damaa bëgg ñu waxtaan wuy ma caam. Baye Matar waaw. passeport américain laa am. waaw waaw waaw xam naa loolu nationalité Amérique laa yor. wallaahi nga xoos xoos boo ko defee ci man. américain ñoo ñëw dañ lay tëj sa ngir dund. caam wuy ma caam caam caam boobu bul kër gi génn leen kër gi yéen ana ngeen ana yokk yokk